Alassane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ndeye Comba. Alassane Cissé nga nekk membre euh, ca Haut Conseil des collectivités territoriales njiitu réew Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar fay décidé nag euh, supprimer au Conseil des collectivités euh, territoriales ak Conseil économique social et environnemental bëgg ko jaaree ci Assemblée nationale en tant que membre HCCT naka nga gisee lu ni mel si waaw xam nga yëf yi politique la pour ut thème de campagne électorale parce que bu fekkente ni yow toog nga nit ñi fàttali la li nga waxoon ci ñaari institution yooyu nga ne mënuma ko ndax awma majorité assemblée nationale waaye nga toog ba jëmmi jamono parce que am na ay problème yu am muy scandale ONAS bi muy affaire lettre Cheikh Omar Diagne bi ci communauté mouride bi ak yeneen ak yeneen ak sa premier ministre bu bañ dem taxaw ci assemblée nationale bi nga bëgg a nëbb loolu yëpp nga ne xaaral ma dugal lettre bi pour indi jiixi jaaxa mais loolu politique politicienne la parce que conseil économique et social benn euh, organe la boo xam ni ONU moo ko institué boo ko supprimé am na ci décision yoo xam ni ONU di jël doo ca bokk au conseil mun naa la waxal ni quatre-vingt-dix-huit la discussion yi commencé ci Union africaine ba ba muy doon euh, euh, OUA la woon sax bu njëkk ba quatre vingt ba ba muy doon Union africaine en deux mille treize ñu adopté ko kon dafa am ay organes la yoo xam ni dafa am utilité ci ab réew waaye nag bu fekkente ni politique la ñuy def man dama xamul lan moo fi changé ba président bi dugal lettre bi kon xanaa dafa am majorité virtuelle parce que ku ne woon man mënuma ko. Hmm. ndax awma assemblée bi tey jii nga dugal ko mooy jéem a nëxal xelu sénégalais yi pour ne leen waaw euh, jéem nañu waaye mënuñu parce que ñii ñoo fi taxaw déedéet état du doxee noonu ñaareel bi mooy boo ñëwee toog te majorité woo da ngay def comme ab lay Wade ni mu defoon def comme Macky Sall ni mu defoon ndax da ngay dem woo président assemblée waxtaan ak moom nga jàllale li nga bëgg a jàllale député yi engagé la bés boo bëggee kii dissolution ci biir rek la mun a am mais ñeneen ñëpp kenn deful dissolution lay Wade deful dissolution Macky Sall deful dissolution parce que mandat bi dafa jeexoon ci Macky Sall ci Ablaye Wade dafa waxtaan ak ñoom utiliser article quatre-vingt-sept la constitution def référendum après looloo fa jëlee assemblée boobu en deux mille un kon nit ñi bu ñu jaawatle ñii dañuy politique kon nag dañ leen di répondre politiquement. mais tey ji Alassane Cissé euh, sénégalais bi lay déglu euh, dafay jàpp ni daal t amalu ko benn njëriñ xamul sax exactement lan ngeen di liggéey tey ji boo ñu doon waxal euh, njëriñu t waaw xam nga ñun Euh, dañoo am déficitu communication nit ñi expliqué li wuñ leen bu baax luy au conseil des collectivités territoriales parce que bu fekkoon te ni depuis le début ñu ngi expliqué nit ñi kon wax yi du am tey boo laajee syndicat yi fay ñëw ci suñuy kuréel ñu leen di éditionné comme euh, ñeneen ki yàgg yëpp di nga gis ñoom boo leen laajee ak ONG yàgg yëpp ña fay ñëw ñëpp kenn du la ne amul utilité li ñuy wax mooy ñun xamuñu woon utilité lii te ministre bi mujjee ñëw ci suñu session bi ñu tëj ba mu toogee ba mu xool ak li ñu def ak yëpp dafa ne moom xamul woon ni nii la au conseil amee njëriñ parce que lépp lu ñuy def dañ koy def ci ay avis motivé chiffré jébbal ko chef de l' mu jël ay kii mu jël ay euh, loi wala décret pour régler problème yi nga xam ni mooy am ci gox goxaan yaag yooyu donc ñun ci loolu lañuy liggéey mais depuis deux mille dix nit ñi dañoo toog di wax di wax di wax nëxal xelu Sénégalais yi ba du sax déglu pour xam lan mooy au conseil. d'accord est aussi dañuy wax Alassane au conseil des collectivités territoriales comme conseil économique social environnemental dafa nekk ay institution budgétivore maanaam xaalis ba fay dem dafa bari trop dañ koy tas delloo ko ci askan wi est-ce que dëgg la foofu ci HCCT dafa mel mhm. euh, mille trois milliards nga jël milliards mooy ñaari institution yi milliards lan la ci dundu état la mu mën bëriwul waaye bu fekkente ni dañu ne dak naam d'accord nañ ngeen dissoudre ko waaye nag nañ dissoudre fonds politique yu nekk présidence ya nekk primature ak fonds commun yu nekk ci Sénégal yépp bu boobaa nag la ñuy doog a def économie parce que bu boobaa dafa gi dina duggul di lu mat cent milliards à peu près dina ci dugg hmm. kon wax ni lii pour lëlee comme dañuy politique ñu bàyyi leen ñu politique ñu leen ñu politique loolu rek ci nekk. Hmm. ndax bu fekkee yaxanal pour yaxanal dañ génnee fonds commun yi ci Sénégal yëpp. mais Alassane waaw nga ne kuréel gi am na solo mais gis nañ crise am ci euh, les travailleurs des collectivités territoriales mais dégguñ leen si wala bu fekkee euh, fasoo leen daal si xeex bi aussi. non crise boobu. Hmm. ça n'a rien ak ñun. crise boobu entre état bi la. waaw ak travailleur collectivité territoriale bi. Mhm. parce que ñoom dañoo bëgg effectivité euh, fonction publique local mhm. ndax état bi moo jëloon dogal yooyu am na décret yoo xam ne dañ ko waroon jël jëluñu ko. Mhm. loolu moo indi crise boobu te loolu nag état moo ci mën a wax. d' accord euh, léegi Alassane Cissé euh, comment dirais-je euh, est ce que kon tey jii Benno Bokk Yaakaar euh, dafa fa yéene taxaw tem xeex euh, décision wu président bi pour mu bañ a jàll ci assemblée nationale. mais dafa warul jàll parce que moom nee woon na mënul jàllale loi ndax amul majorité. Mm-hmm. ba pare nañu yéen toroxal leen seen bopp jàllale ko. Mm-hmm. la ngeen gëmoon wan leen sénégalais yi ni gëmatu leen ko. mooy toroxal nit loolu de la leen wax toroxal leen seen bopp. Mhm. waaw ñun nag dafa am lu ñu gëm. kon ñàkk poste poste conseil conseiller toroxal sa bopp la. non dama ne. Mm. suñu régime. waaw. moo def conseil économique social et environnemental. Mm. moo def. au conseil des collectivités territoriales. Hmm. parce que gis na ci njëriñ xam na lan lay jëriñ. waaye nga ñëw député yi woowa leen wax ak ñoom sa premier ministre ne du ma fa dem ndax nawloowu ma leen yow nga won leen ni yow it nawloowu leen jàppale tànk sa premier ministre ba pare ne leen léegi la ngeen gëmoon ak la ngeen defoon dindi leen ko loolu mooy humiliation weesuwul loolu toroxal nit weesuwul loolu mm-hmm. député yi nag am nañ na ba mm-hmm. buñ ko fa dugalee ñoom wax nañ démb ni duñ ci ànduñu ci tey ñu ci ëllëg te duñ ko def duñ leen may ñoom ñu génnee ko nañu dem uti majorité buñ ko bëggee ñu génnee ko waaye du ñoom ñooy génnee li ñu defoon Euh, Alassane euh, aussi ñu laaj la ci bu fekkente ni dañu dañu supprimer euh, si jamais au conseil des collectivités territoriales yan conséquences la am sur le plan politique sur le plan international. mais li ma la wax rek conseil économique et social environnemental ONU moo ko teeral dëkk boo dem am na fa boo ko génnee dootoo bokk ci yenn décision yuy Nations Unies di jël. au conseil directive union africaine moo ko institué am na ci dëkk yu bëri en Afrique bon booy xool dafa am loo ay kuréel yu mag supranational li ñuy wax doo ko institué léegi nag Sénégal moom bu ko neexee mu génnee ko mais ñoom ñu uti majorité bu koy génnee après nag conséquences yi muy am mm-hmm. ñoom ñu jël ko waaw dernière question Aminata Touré tabb nañ ko mu nekk représentant du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye naka nga gisee nomination bi politiquement laay wax de nit nit ñoo changé waaye privilège yi changé wuñu kon système ba fi nekkoon moo fi nekk ba léegi dara changé wul ci dëkk bi dara changé rupture amul ci leen rupture bi président yow gis nga rupture ndax sénégalais yi gis nañ rupture rupture am na ndax dàq nañu sept cent personnes port hmm. mille trois cent personnes Eiffage cinq cent personnes euh, euh, Lonase bâtiment lépp luy secteur bâtiment taxaw ay junni junni junni junni père de famille toog rupture boobu la ñu am rupture bu bu négative daal nekkul lu Sénégalais yi doon séentu sénégalais yi seen wuñu leen woon lii parce que dañ leen ne woon boo leen ñu joxee réew mi ñaari weer ñu changé kat xar kanam dëkk bi jox xale yi liggéey ñu ci amul liggéey ñu leen di def jox xaalis cent cinquante mille wala deux cent mille loolu de lañ ñu digoon xale yépp dem ne seen waajur yi tekki nañu votel leen ñii waaye boobu ba léegi xale yaa ngi jël gaal di dem loolu daal moo fi am. moo fi am Alassane Cissé maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. maa ngi lay fay di kontaan ci li ma invité soxna Ndeye Comba mm. euh, Sénégal moom ah ñu ngi ci guddi gi ba sa tëgul daal nañu góorgóorlu. Mm-hmm. ñoom waxoon nañ nit ñi ni boo leen falatee nit. bu leen ko may seen tànk seen tànkam boo leen falatee nit bu leen ko jox majorité assemblée ndax lu ko neex lay def kon nag sénégalais yi nañu xam lan lañu ñu war a def parce que ñii mënuñu te dinañ dugal dëkk bi ci guuta voilà ñuy fàttali ni Alassane Cissé membre nga ca Haut Conseil des collectivité territoriales bokk ci la coalition benn Bokk Yaakaar jërëjëf Alassane Cissé jërëjëf Ndeye Comba Moreau